alors euh, quand le chef du gouvernement du Sénégal Ousmane Sonko en l'occurrence euh, dans une sortie bu mu def euh, barkaati démb samedi euh, ne je n'ai pas de compte à à à rentre à la à la press euh, ni à des hommes politiques yow ci place am doon nga doon am même posture bi. ak même xalaatin bi. mais may mu ne dama bëgg yëpp. Hmm. boo ma nee ndax si place am dina am même posture boobu. ah damay laaj mais parce que posture boobu du posture nit du posture kilifa du posture chef du gouvernement du chef posture koo xam ne kii da nga toog ak ay journalistes seize heures ay un deux mille deux mille personnes wër la nga toog sa morom toog ñu koy poser ay question mu nangu wax ci boppam wala boobu du woon bi presse bi dafa changé. changé wul ce sont les mêmes têtes qui sont moom nag nga war a laaj moom lu tax mu changé noonu. man mes relations avec les journalistes sont les mêmes ni ma mel ak yow laa mel ñeneen laa mel ak tout le monde parce que dama jàpp ne ci liggéey bi may liggéey bu ma amul collaboration ak journaliste du ma dem et je parle avec les meilleurs d'entre vous et les plus grands spécialistes dans ce monde di si fii ñu yoroon ay école de de formation yu jàngale j'ai eu une petite discussion tout de suite avec Mamadou Ibrakane que je félicite par rapport à sa position politique d'aujourd'hui qui après les élections au moins à bougé et a montré une direction bu ma dul wax ak ñooñu du ma dem te pour ma wax ak yoo xam ci dara il faut ma il faut ma il faut ma alors est-ce qu'une telle posture une telle xam nga y a beaucoup confusion mais teel na pour ñu waxtaan ci xam lu tax. pourquoi waaye xam lu tax parce que moom woo xam dafa jotagul. moom li ñu koy xaare dafa am lu ñu koy xaare loo xam ne mooy devoir am mooy mission am politique am parce que dégg naa la sax nga wax nga ne dafa am ay pouvoir xaw ma yooyu man xaw ma ko xëy na di nga xam lu ma xamal mais pouvoir yooyu laa gisugul gisuma pouvoir bu mu am bu fi premier ministre bi fi jógee amul parce que diggante bi changement de législation amu fi les dispositions relatives au premier ministre ci constitution bi changé gul lenn rek moo changé Amadou Ba moo fi jógee ak costume am karaatam ñu indil ñu kii borom mbaxana mi ak borom couleur yi dara changé wu ci par contre moom loolu doo xam c'est c'est c'est il faut dénoncer cette façon de parler notamment et à la presse et au dafa am dafa am obligation informer dafa am obligation ñëw ñu laaj ko. dafa am obligation député yi da ko kaay mu ñëw toog ñu laaj ko ngeen toog la muy wax ngeen jël ko yóbbu bu yoo leen paree ngeen wëri laaj ko bu ba xa neexee bañ a neex dem yoonam mais loolu du wax du waxu kilifa man gëw ma ne bon est-ce que je ne sais pas qu'est-ce qui